الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتبارك الحركات وتضعف الحسنات ثم الصلاة بأكملها مع السلام بأتمه على أشرف وأكمل رسله سيدنا محمد بهجة الكون وديائه وعلى آله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 ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di dellusiwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof li ma sosoon ak yow ci waxtaan yi yëpp mu jublu ci wàllu jumaa yi ngir yëg yëg feebar bu garaaw bi ci nekk bu gën a garaaw feebar yi nekk ci hôpitaux yi ndax ñooña jàngoro biti rek lañ mën a faj. waaye ci jàkka yi ak jumaa yi lañ war a fajoo jàngoro yi biir yi lu mel ni rëy ak soxor ak siisanteeg bëgg àdduna ak bëgg daraja ak xëccoo poñatam àdduna mu ñàkk solo te yi jàngoro yañ fa war a fajoo yëpp dañuy far di ko fa jëlee ngir rek ñu manki ñu bari ñoo xam ne dañ leen a waroon a jiite ñiy far ñoom ci seen bopp du jiite ku ñu war a jiite nag bu jiitee rek ña muy jiitee mënuñoo mucc mukk ci am musibaam ak jakk yi ñi xewal defee ay commission te la ci ëpp ay pexe rek moo ca gën a bëri ak tëral ay kalan yoo xamee ne nii dañ ko cay jéem a doxal ci commission yooya li ko yóbbu nag la ca gën a bëri yëpp mooy yàlla man la nga mën def te defuloo rek saa yoo mënee def te defoo wala nga war def defoo ki war def bu defee rek dafay mujj ñëw conditionnel la ngay mujj di tënku ci gannaawam di wëy ci ay waawam ndax nit ku mën don doon ñaareel boo ko rek mënta ñàkk logg loggal log war ta log da fay wara log logal rek waye bo waré def nga def su boba li nga rek yalla mën la dimbalé moy am nga fexé ba tëral lu dëgg lu juk ku ca mën a and ak yow nek ca ku ko mënut séti fenen fu ko doy mu nek ca rek jamu na ñoy suñu mag ñu bax ñu loolu lañ fi nekké won wara def ta def rek bañ paré ñi tëralal seen bop suruut yalla tëral ñi feddali ko ku ca mën a tënku ànd ak ñoom and ci ak ñoom ku ko mënut seeti fenen fo mën ne kon jàkka yi nañ koy dawale sobe yoyu nga xam sobe sobe maanaa la te day yàq jàkka mooy jiital ko xam ngir ak halalam wala ngir ak darajaam rek tax nga jox ko poste bo xam mom ci bopam xam ne sax xéewut ko wala jital ko xam da nga ragaw al awhayam rek ki daal ku bëgg mukki ci awhayam nañ ko jox poste nangam su boobaa danañ mën a mucc ci lépp lu mu bëggoon a wax mbaa lu mu bëggoon a def dana jël postu ba mbubbuwoo ko ba dootul waxati dootul defati waaye yonent bi dafa daan wax ne mbir yi saa yuñ ko wéeree ci ku ko xëyow rek xaar leen bis penc foofa la ko yàlla di réglé te wéer mbir yi ñu ko xëyowut dafay tegtalee jegeeg tukk ak àdduna te loola tabaarakallaahu hegg nañ ca kon nag jàkka yi nañuy seet boroom xam-xam yi. seet ñi ragal yàlla am jikko boole koog maandu ñi jël jàkka yi jox leen ko ñi di ko jiite fuñ mën a bokk baax nañ su ko defee tamit ñoom ñooña ñi xam ne ñoo fi nekkal lislaam ñoo fi nekkal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama nañu ñag miirab seen kilifa gii di yonantu bi ak miirab lislaam bi ba bu kenn mën a jaaree ca moom di yab lislaam waaye am na ci loo xam ne bu ko ab ilimaan defee wala ku ñuy dàkkantal ab maam dafa ubbi porte bu nit jaaree pour yab lislaam wala hubbu porte boo xam ne nit dafa cay jaaree di yab sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñaar ñi nag yabuwuñu ku leen yab da ngaa ñàkk jom yonent bi yabuwut lislaam tamit yabuwut ku hubbi porte buy tax tamit ñi bëgg leen a yab yow mooma tamit ku doxadi nga ku xeebu nga ku ñàkk a mat tamit liñ leen liñ lay doxee la te loola dafa bëri ci aima yi te baatab imaam boo xamoon li muy tekki rek luxatan yow mi yàlla nattu ñi fal la ko doo ko foyeeti imaam luxatan mooy tekki kordu kordu yooyu ñii nattee tabax yi nga xam ne bu melee nam war a mel nga natt ko ni nga ko war a nattee rek tabax ba bâtiment ba jub man nga faa dëkk juróom fukki at juróom benn fukki at doo gis benn fissure waaye kordu bi buñ koy natt mu dëng tabax ba lu mu rafet rafet balaa ñaari at ñetti at rek nga gis fisir boo xam ne fa bati fa bâtiment ba di mujj rek mooy daanu kon yow yi ilimaan ji comme yaay korduy jàkka ji yow lañuy ñuy nattee jub ak jàkka ji ci sàppe yi ak mbooloo mu nekk ci sa gannaaw danga war a góor góorlu ba gën leen a jub gën leen a ragal yàlla gën leen a maandu gën leen a xam su boobaa tabax sàppe yi tabaxu ci sa gannaaw lépp dafay nekk di lu jub lu cay lu dëng yow danga ko mën a dingarti ku jub moo mën a jubbanti ku jubut waaye boo jiitee nit ñi jubuloo ku jubut timit doo ko mën a jubbanteeti ndax loo ko wax mën na laa wax lu ko gën a ñaaw lu dëggu lu kenn mënta diti kon palag yàlla gi mu jox leen muy lu rëy sarax yu ñàkk fulla yi bu mu leen tax a dëng yaakaar ay ay ay ndimbal bu mu leen tax a jubati ñi tabax jàkk nit indi xalalam ne maa bëgg ku ma ko jiitalal ci sama biir bàmmeel yow nga dëng ne ana yilimaan ñi mu ne mi ngi nii ñu teg ko ci sa loxo nga diisoog noddu karina bu mu jug jël loola au lieu nga dugalal ko ko ci bàmmeelam mu jiitu ko ci yow nga dugal ko sa bàmmeelab biir bi du la jig kenn mënu ca dara dana jeexital ci say cër benn ca bët ya mbaa ca nopp ya mbaa tànk ya mbaa ca biir ba ba ordonnance yoo programme wutoon génn ca ba nga mujj def ca loo xamee ne nii sax programme yi xuloo koon te yaa ko moomoon kon yooyu yëpp nañ koy daw boo nekkee limaanu jumaa mbaa jàkk palga war na laa doy wali sarax ya lu ñu fa indi ci sarax seetal ñi ko yeeyoo nga jox leen ko waaye yow nel li ma yàlla sédd doy na ma sëkk ndimbal bu jotee annoncé ko seet ña gën a jub ki say maam moom nga teg ko ci seen loxo ne taxawal leen liggéeyu jàkka ji waaye foo toll tamit del contrôler luñ def nga xam ko ñu la facture yi ngay toppatoo loolu lépp ba mu leer nañ ndax liñ jënd ak liñ ko def ndax na am déet bu méngoo nga dëgëral bàyyi mu continuer bu méngoo xamuloo loo taxaw nga taxaw bu ëllëgee nga xam bu dara ñëwee fan nga koy teg yooyu yëpp jubay tax nga man leen a jubbanti waaye ku jubut mënul jubbanti kenn te dañoo bëri ay yu jubadi ci ji jamono kon yooyu nañ ko bàyyi xel ak imaama pal gu rëy la ku ko yàlla def nattu la jox la pal gu jox la lu mu mujj mujj borom du dégg baatab ansee pal gu njëkk mooy ki juddu amagul tur yow ilimaan la yàlla darajaalee nattu la yaa jiitu ci ay noppam noddu liqaam joxe tur kon yaa njëkk ci liir yi ki nga tuddoon bu demee ba dee yàlla dogal amatul tur yow la yàlla nattu yaay mujj ci moom na defar leen sàppe yi ana ko mën a garanti bor yi an ana ña koy seede buñu paré nga kabar ñenti kabar digëlé ko ñaan go yeelu jébbal ko boromam kon yeen iliman yi yéen ñëk ci liri yeen iliman yi yéen muju ci néew yi ku ñëk ci lir nak muju ci néew bobu pal ku ko yalla jox doy daraja doy na bu ko borom xamé lolo waralon biko yalla joxe suñu mam ibrahim mu nekk iliman mu téye ko nam ko war a téye waaye ba ko ko yàlla jox dañ ko dañ ko examen ilimaan kenn waru ko jot a fekk examen wuñ ko yàlla da koo examen ki ñetti jikko ñi nekk ci ñetti jikko yoo xam ne ñetti ñetti saara koy tudd ci alquran boo boolee jikko yooye muy fukk yàlla ne wa idhibu tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna door a mën a xam yàlla examen na ko ci ay fukki not yu ko yàlla laaj mu war koo teewal yàlla ne fa atamahunna mu mu at mi ca fukk yëpp fukk ya bam ca at mee nag ci la ko sama borom ne ko nag ah comme at mi nga nag inni jaa'iluka linnaasi imaaman tey tey ma def la nga ilimaan ñeel nit ñi kon luñ cay déggee ak imaama kenn du ko jox kuñ exeme wut war nañoo exema sa xam-xam ndax mat nam dit li lepp luy julli di meuna wéré ñi sét ndax xam nga ko dit nañ koy préparer ci sangu janaba ak ñap bu nganta xamee nu ñuy timé fatiha ku saar wu rafet lu ko yaak su joojaag luñ cey wax ku jamaj yok mbaa dolli wala mu bayyi ponku rak'a ba ko meng fasuna ak faso gut nuñ koy réparer ak bu dañ ko war nuñ koy sanni li lepp dañ ko ko war a examen ba mu xam ko muy première ñu xam ne xam-xam bi matee na ko ñi examen ko ndax jëmm ji manee na ko am na kartan ci mën a indi rukkoo ya am kartan ci mën a indi sujjóot ya am kartan ci mën a indi ponk yoo xam ne ko jug wax la ci jàng faatiha ju rafet su ko defee kon ñu ne kii kat ponkum ya man na kartan ci indi ponk yu wax yaag yu jëf ya yu jëf yi lu mel ni rukkoo ak i sujjóot ak sigéeg ya ca aju yu wax ya mel ni jàng faatiha ak sëlmal bu mat am na ci limaan yoo xam ne sax mënuñoo sël bu ñu sël ñu ne salaamualeykum julli nga yàqu na wala ñu ne salaamualeykum yàqu na asalaamaaleykum la ñuy wax yooyu yëpp ñu exeme ko ci ñu ne xam-xam xam-xam ba matee na ko jëmm jag wér ga manee na ko ñi door a seet nag jikko ya ci diggante maandu ga seet jikko yaa tax sax majhulul xaal ku ñu réere mbiram xamuñ nu mu juddoo xamuñ fu mu juddoo xamuñ lan mooy jikkoom ñi bañ kooka di nekk imaamu kon kuñ xam moo war a jiite ñi exeme ko nag jikkoom ya maandu ga njub ga ragal yàlla ga yooyu yëpp ñu seet ko tabaarakallaahu boo ko doon càmbar na mat fukki jikko yi suñu borom exeme premier ilimaan jim tudd ci alquran tudd ko doonte ña ko jiitu woon ay aima lañ muy suñu mam ibrahim Biko yalla tek semé ca yoyé yépp mu admi ca sama borom nak dor ko wax ah, né ko a qawma kan de way yow inni ja'iluka linasi imaman fukki yu ko egg semee juróom yëpp ci bop la ne yépp su ko défé kon juróom ya mi ngi ci bop bop ba timit ci digënté qarqarama ak Euh, bopp ba rek la ne yeneen ja ca des yëpp ma ngi ca la des si jëmmam ja yàlla examiné ko ndax kii dugg na néegab góoram déet war nañ koo dugal néegab góor moo tax fukkaaw yi di bañ ilimaanu xaat xaat nag boo ko déggee mooy ku duggul néegab góor baat bu luxa la nag xam naa boo ko doon wax ci ji jamono xale yi mujj juddee ndakaaru xamuñ sax la mooy baatu xaat waaye aat buñ ko waxee rek mooy koo xam ne duggul néegu góor moo tax ilimaan la première am li ko yàlla njëkk a examen ci aada kii Ibrahima mooy mu dugal ko néegab góor su ko defee tamit mu ne ilimaan wóorul nekk koo xam ne boo ne ko jàkk sa fit wi dem maanaam yar ay mustaasam mu yëkkatiku ba mel ni koboy ku jëm ca arme ba déedéet na defar naanu waay dagg ko nam war a mën a mel moo tax mu ne ko tamit daggal sa naanu waaye ba mel ni mu war a mel ni sa naanuwaay mel nii ci yiw na niroog tamit ni nga mel ndax nit ñu bari niñ mel meluñu ko nit ñu bari niñ xam meluñu ko mu ne ko nag damaa bëgg nga mel ni nga xam damaa bëgg tamit nga mel ni nga mel mu dagg naanu waaye muy exeme ko tamit abilimaan warul bàyyi ay wexam muy gudd ba mel ni wexi mala koo jo koo jote man koo lor ci say wex kon loolu ma ngi seen ma ngi ca namu ilimaan warta lore te war naa nangu ku ko lor dafa war a fegu ay lor mu ne ko kon daggay sawe yi mu dagg weya tabaarakallaahu bam mel ni war a mel mu ne ko abi limaan balaa jiite nit ña war naa xam nit ki bu duggee wanag nu muy war a waajalee boppam ci li ñuy tuddee istin jaaw mooy tàncu fexe ba tabaarakallaahu yëreem yi sobe bu mu ca ci boppam tamit bu mu sobe bu won ak nañ wara défaro bopam war nañ ko def ci kanam gi gannaaw gi lepp ba yooya yëpp mat sekk ah mu jangal ko yoy yëpp yalla ne bama ko ci nak fa atamuhunna matal na yëpp ba sama borom ko inni ja'ilu ko na linasi imaman si ma def la ngay limaan mu xam li pal la ci kuko man pal gu la ci kuko mat pal gu rëy la ci ku pare ngir taxawé ko ci la nag ne ko man tamit damaa bëgg samay doom samay sët ba ci samay sët sëtaat yëpp nga def leen ñuy ilimaan moo tax Ibrahima ne qaala wa min zuriyati dafa ko def muy minam istigraqiya damaa bëgg sama doom yëpp nekk ci samay ak lépp lu soqeekoo sama digg rek na nekk ilimaan yàlla ku ñor la ku yeewu la yàlla ne nag duwul ne ñëpp laay jiital yow da nga maa bëgg xëcc ma fekk la ci aada ilimaani aada rek. jàkka ji sama bàyyee fi doon jiite kon maa fiy jiite sama bàyyee fi doon jiite léegi neexatu fi maa mag maa fi war a jiite te magee woo ci xam-xam du ci jikko du ci maandu ah yàlla ne ko déedéet li nga may xëcc duma la ci fekk qaala laa yanaalu ahdiya zalimin man yàlla duma ma jiital tooñkat te première tooñ mooy réer ba boo réeree rek xamoo da nga tooñ sa bopp tooñ ñi ngay jiite première réer mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy réere sa bopp kon nag yàlla lim ko wax baat bu gàtt la boo xam ne bawut dara nekkul fa ko du ma jiital naa nga def ne ko tooñkat rek ndax tooñ foo ko fekk ñaareel mu ngi soqeekoo ci réer moo tax araab yi leen tuddee tooñ ndax koo réeree tooñ ko waaye am na koo xam ne boo ko xamoon la ne ci moom yàlla wan la ko doo ko tooñ mukk waaye bari na ko romb nga cokkas ko dal ci kawam danga nga koo réere de waaye boo xamoon garaat yi mu làmboo yu zahir ak yu baatin doo ko tooñ ba yowmal am moo tax araab yi léegi léegi ñuy tëdd ñu jël tooñ di ko di ko di ko di ko di ko tuddee réer jël réer di ko tuddee tooñ kon nag yàlla ne ko xaw ma waaye man du ma jiital tooñkat Ibrahima nag yàlla wan ko ne ko koo mën a jur muy sa doom mbaa muy sa sët mbaa muy sa sët sëtaat soo ko juróo ci deret te juróo ko ci jikko du ma ko jiital du ma ko def mukk yàlla nag may na ko kum jur ci deret moo la jur ci jikko mi ngi nii moo jur yonentu yàlla Ismaayil moom ak baayam ñoo tabax Kaaba ga dafa fa baayam niwut moo fa nekk di jiite Kaaba ga Ismaayil ay doomam di ko jiite ba ci sëtam bi mu mujj nekk ilimaamu ilimaan yëpp di sayduna Muhammad sëtu yonentu yàlla Ismaayil la moo doon imaamul anbiyaay wal mursaliin ba ñoom ñëpp dajee ca baytul maqdis moo leen jiite ñaari rakkaaya te sëtam yonentu yàlla Ibrahima la ñaareel bi moo jur yonentu yàlla Isxaaqa ilimaan la woon mu doon ilimaanu banu israil yi moo jur moo mu kooka jur yaquba yaquba ilimaan la woon moo beesal baytil maqdis waxoon naa la ko jur yaquba jur yusufa yusufa ilimaan la woon moo tax yonent bi daan toog ba si yàgg mu ibnul karim ibnul karim ibnul karim ñu ne ne mooy yusuf ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim yonent bi ne ku tedd di doomi ku di doomate di doomaate ku tedd doomaate ku tedd kooku daal mooy mooy yuusufa yonantu la di ku tedd di ilimaan baayam yonantu la di ilimaan di yaquba maamam yonantu la di ilimaan muy ishaqa maam mataaram yonantu la di ilimaan moom la ñu waxoon ne ko inni jaaxiluka linaasi imaaman muy yonantu yàlla ibrahim kon ilimaan ba ca gën a xées mooy ilimaan ju réer réer yëpp bi ci gën a bon mooy réere sa bopp ndax léeg-léeg nit réer jàng ba ba leerlu waaye boppam la réere rek boppam nag boo ko réeree man ngaa jël sa bopp def ko marchandise di ko jaay bu intérêt àdduna taxawee rek nga jaay sa bopp ba jaayee la la féetee la gannaaw waaye nit nag bu ko yàlla mayee mu sañ a jaay ku sañ a jaay waroo jaayu yàlla la may nga mën a jaay sa xar yi kenn du la wax dara jaay sa ganaar yi jaay sa bëy yi jaay sa oto bi jaay sa fas wi kenn du la wax dara waaye kon yow mii sañ a jaay bul doxadi xébu bañ bañ bañ lay jaay yow ci sa bop ma ngay jaay way way ko xamné ku ku sañ jaay waaye jaayu jaayu na la kon nak yoy nañ koy bayi nañ bayi pengetam àdduna mii di ko jël diko jaayé diiné té du tax nga tedd da ngay gëna torox rek mala ko wax da ngay nga cay ak torox rek do do jëlé dara lu toroxtaane kon nak yooyu nañ koy daw liñu yalla sedd mo hëpp doolé liñ bëgg sedd suñ bopp fi ñu yàlla tollalee moo gën fi ñu bëgg a toll ni ñu yàlla melal moo gën niñ bëgg a mel kon ilimaan faw ñu exeme ko ci jikko yooyu ma wax la buñ ko exeme nag yàlla dogal mu esek te esegam bi mooy réer walla moom mu réere su boobaa rek kooka kenn waru ko def ilimaan nit ku réere boppam kenn du ko jiital nit ku réer xamut kenn du ko jiital moo tax kon ñaar yooyu rek ci la yàlla tënk yonentu yàlla ibrahim ne ko qaala laa yanaalu ahdi zalimin kon ilimaana ngóog ngoog am mooy na xam ñaareel bi na xàmmee na doylu na maandu na ragal yàlla na gën a jub ba mel ni kordu ñi muy jiite waaye ilimaan joo xam ne moo gën a dëng xala moo waral kon bu boobaa yi muy jiite dëng rek moo tax léegi jàkk joo ca dem sàppe yaa gën a dëng defar len sappe yi ba sonu sappe sappe yi rek kon lulu jar na xel su ko ibrahim Ibrahima premier liman ñi exeme ko mu atmi ci la ko yalla exeme won mi ngi fi ba tay di fukki jiko yalla tuddu fukki jiko yeb ci ñetti sar suratul muminuuna cala suratu tawba cala su ko defee tamit yooyu yëpp bala nga jëlati kenn di ko def liman war nañ ko ci exeme su admee ñi jiital ko bu admee wut ñi gis ne def nag njombate ci yile dañ koo war a folli waaye nit ñi waruñoo ñàkk fayda di roy ci koo xam ne boo ngay roy ci moom sa xol baa ngay nëx nëxal ndax xam nga ci moom ak luubal xam ci moom ak maandu xam ci moom jikko yu di yu xeebu yoo xam ne ku dul jullit sax ñu ñemewu ko waxuma la moom mi ne jullit la waxuma la moom mi ne ab ilimaan la kon yooyu yëpp nañ koy daw ci ak imaama li la yàlla def pal gu rëy rëy la te mbooleem pal yu fi ne ñaareel borom bu fi yàggee rek dégg baatab ancien léeg-léeg nga dégg ñu ne kii de ancien ministre la woon kii de ancien président la woon kii de ancien ambassadeur la woon kii de ancien sénateur la woon kii de ancien député la woon kii de ancien gouverneur la woon kii de ancien maire la woon ñu ko dégg bari waaye mosuma dégg kii ancien élimaan la woon. kon nag yooya yëpp dee ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax jikko yu bon yooyu nga xam ne ay sobe la euh, nga fexe ba daw ko yow ilimaan ji soo ko dawee nag ba pare ci ngay mën a door a dawale sobe yii ma bëgg a tudd ci jàkka ji yaa bi ci njëkk mooy jàkka ji nañ koy dawale sobe nañ koy dawale tilim lu mel ni am saw nañ koy solil jakka ji lu melni ni ci dal yi ngay indi ale diko duggal ci jakka ji de ko xool bala nga ko duggal ci jakka ji fu ñuy sobe ken wuru fa duggal sobe dal yi nga deug ci foos bi mu tuuru nga dugg ak mom ci bir jakka ji ya nga duggal sobe ci bir jakka ji lol lañ ko wara daw diko ko xel bu baax a baax diko nemeku di ko bu sa dereet génnee ci jakka ji gawal nga dangal ko te génn jakka ji bu la yàlla nattoon nga dugg ci biir jàkka ji nelaw nga fa sa mën yu génn dawal nga gaaw génn jàkka ji yooyu yëpp ay sobe la dañ ko fa war a génnee naka noonu tamit jàkka ji buñ fa tabaxee ay néeg yoo xam ne dañ fay julli bu jumaa jotee mën nañ faa julli kenn waru faa dëkk ak soxnaam di fa ànd ak moom ndax loolu lépp ci jàkka ji la lépp lu ñu mën a jullee rek ci jàkka ji la waaye buy néeg boo xam ne dañ koo jagleel nit ki moo xam da koo tabax ca kaw wala mu tabax ko ca ruq ya jàkka ji mënu koo feesee ba kenn julli fa kenn sax du fay dugg lu dul moom wala ku fa dugal loola moom bu bokkee ci jàkka ji tamit bokkatut ca nga dëkk ca ànd fa sa soxna di wéet ak moom dara niwu ci waaye feeg ñu ngi koy mën a ubbi am ñu fay jullee rek kenn waru faa dugal soxna di fa wéet ak moom moom la alquran ne wala tubaashiruhunna wa antum aakifuuna fil masaajidi kon yooyu yëpp naa daw ah, beneen bi boo duggee ci biir jàkka bala nga fa dem dafa am yoo sobe soo war a daw ah, donte sa dagan naa lekk muy bépp xet gu gu xasaw rek bu ko dugaale ci jàkka ji boo lekkoon lu mel ni soble walla nga lekk lu mel ni ah, laaj boo xam ne xaaraan la togguñ ko ba mu ñor nga koy lekk muy xasaw bul dugg ci biir jàkka yi ndax loolu xet gu bon la guy xasawal malaaka yi te ñoom xet gu bon bu leen xasawee rek dañuy rëbb ki ko fi indi bu ne nag soble xaaraan ak laaj mën nga caa dugalaale mbooleem xet yu bon yi ah dugalaale na xet ak cigarette cigarette kay moo gën a xasaw boo ko yoree bul dem ci jàkka ja demal nga gallax ndiku tuuroo parfum ba mu dañ wala xet ak sàngara bu ko yóbbu ci jàkka ja bul yóbbu xale xet ak dorog ci biir jàkka ja yooyu yëpp eh, xam ne dafay nekk lu xeeñ da ko koo war a daw moo tax mu ibnu Xattaab dafa mos di xutba ci biir xutba gi eh, ci bitab bisab jumaa mu ne suma innakum ayuha nnaasu taakuluuna min shajaratayni laa araahuma illa xabiitatayni haada albasal wa thuumu laqad raaytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida wajada riixahuma min arrajuli fi lmasjidi amara bihi fa uxrija ila albaqi fa man akalahuma fal yumithuma tabaxan loolu Omar ibnu Xataab moo ko daan wax dafa mos a xutba ci bisab ajjuma mu ne yéen nit ñi gis naa yéen a ngi lekk ñaari garab yi meññatam ñaari garab yi mooy soble ci xaaraan ak ak laaj man de gisoon naa yonantu daal ku ko mos a lekk ah, boo ñëwee ci jàkk ji dafa nañ la génnee nga jëm ba ca baqeex ca marché ba mu ne ko mënta ñàkk lekk nag na nga ko rey te mooy nga togg ko rek ba mu ñor boo ko lekkee day fekk xet ga dem na waaye bu nekkee noonu ak xet ga laaj soble eh, yooyu kenn waru ko lekk ca xaaraan nga di dem jàkka xet ga dafay lor malaaka yi kon nag dugalaale ca mbooleem xet gu bon gu ñaaw rek yow mi nekk ouvrier moo xam yaa ngi nekk mécanicien sa tenue bi nga sol ma nga tilim bo duggé ci bir jakk ji tilimal nit ñi tilimal wai moket ya way way way euh hutal mbub mo xamne nga ko wara xadu bu subar nga ko waaj sol ko dem dem dem dem julli ji ndax yaangi yomi yow mi yore sa sa sa tenue de travail bi donté lab na mëna julli comme xamul sobe amna ko xamne bu la bu la mayon audience ko yóbbu te ki la may audience nak mo hupp doole koko téeméeri junne yoon kenn ku ne ci ñun bu ab président mayoon audience wala ab ministre wala ab gouverneur wala ab maire wala sax euh, benn ambassadeur euh, da nga yëre ya nga gën a fonk ngay sal soo kaalaw tuuroo parfum commencé tiitaru mën a dem toog mën a wax ak moom waa buur bu day ni yàlla may la audience nga sol sa yëre yu tilim yi sa yëre yu xotteeku yi sa yëre yi nga xam ne koo jegeek tilimal ko loolu xormaa looloo bolom audience bi xam nga ne yooye boo ko soloon boo jubloo pale ñu ne doo doo dugg yow da lay wóor tamit nag boo jubloo pale yàlla bi tamit malaaka yi ne doo dugg boo fa duggee jëmmu jaa fa nekk rek waaye fekk na la lay lay tax jëmu gi di jëmu duggatul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan wax ne man akalahuma fala yaqrubna masjidana waaw waaw mu ne képp koo xam ne da ngaa lekk soble xaaraan wala laaj bu mu jege suñ jàkk yi loolu la ko daan wax hadis la bopp abu daawud moko solo kon timi lola fuqaw yi dugulal nañ ci mbollem yere yu tilim yand yi wala yere yu xassaw yu xeeñ yi ay fan sanguwuloo dem ci jakka ja sa xet gi ubale ngay lor nit ñi lor malaka yi baaxut ndax diina gi diine la darara wala dirara la kon yoy yëpp nañ koy daw euh, nañ koy daw diko sori ci jakka yi nañ koy daw diko sori ci jakka yi nañ ci xel bu baax naka noonu tamit tere nañu tereg sibeel dugg ci biir jàkka ji ngalawal fa ngalawal ga ubale xet ga xasaw ci biir jàkka ji kenn ku di xool moromam te ñaareel da nga gis ku ko def ba pare kat te du génn dem jàppi de moo lay gën a ñeme yàlla de taxaw noona day bokk sax ñu njëkk a gestoo kooku noonu daganut bu la ngelawal li gaaree daal ah, gaawal nga génn mel ni ku téye sa bakkan su ko defee tamit nag nga dem beesal sa njàpp li donte ci biir julli gi la la dabee tamit defal noona soo ñëwee lu la ca fekk nga fekk nga dab ko lu la ca fekkut nga tàmbalee xat julli ga ndax malaaka yi dañuy jéggalul yàlla jaamab yàlla bu toog di xaar julli feeg mi ngi ànd ak laab bu tojlee rek moom dootuñ ko jéggalooti moo tax ah, innal malaikata وإن الملائكة ما نام تستغفر للعبد الجالس فيه لانتظار الصلاة ما دام على طور فإذا أحدث حرم من استغفارهم لولو لولو فقهاء يغم كون يوي دنج كو داو البخاري حديث اك مسلم مو بوكو حديث ابي هريره من يونت بي نينا ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه mu ne yéen ñii dem ci jàkka yi di julli ji julli gi jotagul ngeen toog di xaar malaaka yi dañ leen di jéggalul yàlla feek tojlewu leen bu ngeen xasee tojle nag dootuñ leen jéggalooti moo tax kon ku dugg jàkka boo tojlee génnal nga dem defaru jaat door a ñëw ndax yàlla du la xeñ ñaan ak malaaka yi juróomeel bi te moo ku dugg ci jàkka bañal di yëkkati sa kàddu ci coow mbaa nekk fa mel ni ku nekk ci marché di waxtaan waxtaan waxtaanu àdduna rek cheikh na Tijaani Cherif dafa lim ñaar fukk yooyu màbbu jëf ñaar fukk yooyu ba mu koy lim ñiy màbbu jëf jawaahirul ni indi na ko borom duratul xarida indi na ko boole woon na ca nekk ci jàkka muy jumaa di fa waxtaan waxtaanu àdduna jumaa ku fa waxtaan waxtaanu àdduna sa sa sa jëf ju baax ja màbbu koy wax ba xeg si néegam yàlla am ak yàlla audience waxal ak borom audience bi bañ a wax ak ñi bokk ak audience bi. waye ñew am ak borom bi audience wara fa wara wax ak niga nek fa yow di wax ak ñi bokk audience bi koka pertement la waxal ak mom lu jublu ci walu audience bi rek tuddu ko jàngal alquran jéggalul julil ci yonantu bi lu bari diko def kon lo la wax falaa ahadan la wax sama jakkay suma len maye audience ba ngeen ñew fi bu len waxati lu jublu ci walu audience ba kenn wax len ak man mi borom audience bi kon lo la bëgg motax yonentou bi mosna deg aw nit ño xamé na ni ay commerçant la ñi yëkëti seen njaayma ci biir jàkka ja di wax rek yonentou bi ne leen innama buniyat hadihi almasajid li zikrillah fa ida zakartum tijaratikum wa dunyakum fa akhriju ila albaqia waaye jàkka yi dañ ko tabax ngir tudd yàlla su ngeen namé tuddu seen commerce bi ak seen mbiram àdduna génn leen ngeen jëm yaa ca marché ba bu leen ko fi waxeeti suñ jàkka yi ji jamono nag tabaarakallaahu yëkkati kàddu yi yàq na ko waxuma sax waxatuma yëkkati kàddu mais yëkkati lu kàddu luy yëkkati lu kàddu lu laa njëkkee ñu ci bëri buñ duggee ci jàkka yi seen portable yi jàkka yu ci bëri danañ bañ ba desee ne portable bi dañ ko war a fay waaye dara léegi-léeg nga dugg ci jàkka ji nit ki bàyyi portable am rawatina portable seen waaye yi nga xam ne yàq waxtaan rek ak teewlu jul lañ man nga toog ba ci kanam rek dégg sikar su yëkkatiku ca kaw ñëpp xamatuñ lu ñuy def léeg-léeg nga dégg ay son yoo xam ne kenn xamul lan la la ca gën a garaaw na léeg nga dégg mbalax moo xam ne ci biir jumaa ja da ngay yéemu ci yàlla jàkka ji hubale waaye nekk fay jéem a fay balaa booba ñu bari seen julli ya laaw dara neexatu fa loola baaxut ñëpp ñàkk xay rek kuy dem kay yoo comme fi nga jëm boo fa demee bu ñu la wooyee kenn du la wuyu jëru jëm portable ci jàkka comme doo fa wuyu bàyyi ko fa waaye jël sa portable yóbbu ko ca biir jàkka ja yóbbu ko ca place yi ñuy leen néew yi di seede yóbbu ko ci fi ñuy jullee néew yi yóbbu ko ci fi ñu leen di sangee yóbbu ko ci fi ñu leen di waajalee yóbbuwaale ko ba ca biir armeel ya fi ñuy suulee néew bi nit ñuy teewlu xel yépp dem ci yàlla sa sa sa portable ba sonné dóor mbalax moo xam ne xel yépp yàqu nañ te loolu lu jeex waxkat yi wax nañoo wax a wax bay bëgg a dee mënoo ca dara. dugg ci place conférence yi conférencier ba di wax lu ama am solo portable yi commencé sonné su ko defee nag kon yooyu yëpp nañ koy daw lu bon a bon la foofa yow waxoo mais yaa wax lu yow nag boo waxoo eh, tere la wax nga wax lu sa wax lu googa muy portable bu sonné booba di yàqal nit ñi jax-jaxal yi dafay màbbu sa jëf ju baax ji nga xamoon kon mooy tundi ko leen yóbbu portable yi ci jàkka yi bu leen ko yóbbootu ci armeel yi bu leen ko yóbbooti ci morgo yi bu leen ko yóbbooti fu ñuy waajalee néew yi bu leen ko yóbbooti ci yeneen place yi waaye waaye xam ngeen ne am na ki ñoo xam ne booy xam ak ñoom audience sax bala ngaa dugg dañuy wax ne bàyyi fi sa portable bi nga fay ko nga bàyyi ko foofa ca gardien ya soo ñëwaatee ñu door a taxal jox la ko nga dem te ko ngay gis audience nit rek la mën naa xam yaa ko ëpp cër sax ci yàlla moom mu ëpp la cër ci àdduna mën naa xam te moo la ëpp cër ci yàlla yàlla xam. yow nag ngay xam ak buur bu day nii yàlla audience ci néegam bi mu moomale ko boppam askane ko boppam nga jël fa sa portable bàyyi ko fa muy sone nit ñi xamatuñ lu ñuy teewlu nañ koo bàyyi baaxut lu bon la lu ñaaw la te mën naa màbbu sa jëf ju baax ji foofa moom dangaa wax lu naka noonu nga nekk fa di wax nag mbiram àdduna bi am na ñoo xam ne tey ilimaan yi xamul seen bopp sax ci seen xutba ya la ñuy waxee waxi politique di xiirtal nit ñi ña xam ku ñuy wala ñu xutba xutba goo xam ne ñoom fañ féetewoo ñëpp xam nañ ko ñu ngi cay xiirtal nit ñaa ca yooya yëpp te boo demee xalil dafa ne ilimaan ji bu xutbaa mu dugal ca politique na nit ña jug bàyyi ko ca jàkka ja dem seeti yeneen jàkka joo xam ne ka koo jiite ku mat la ndax ki def loola ku manki la matul ilimaan kenn warul julli ci gannaawam ci wàllu woowa kon nag yooyu yëpp nañ koy bàyyi waaye jaay sa bopp bëgg jaayaale nit ñi ngir intere ba àdduna ba ba jël loola di ko yóbbu ci néegu yàlla diko fa bëgg euh a euh imposer nit ñi loola timit nekkul lo xamne lu bax la lu bon la yonentu bi daana wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne Ali ibn Abi Talib boo ko génnee yonent bi ne juro fuk ak juróom a ngi ni fuk ak juróom bis bu démé ba sama xeet wi hegg ci wallahi mi ngi tektalé yàlla dañ leen toroxal hegg nañ ci toroxtani haduna جفوك جروم يب سمو كل ميدان قبنا هي جنانجا علي بن ابي طالب من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فعلت امتي خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال اذا كان المغنم دولا واذا كانت الامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان سعيم القوم أذلهم وأكرم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها fal yartaqibu inda zaaka riixan xamraa aw xasafan aw masqan tirmidi yu indi na hadis bi boo demee ci tarqiib ak tarhiib borom indi na ko fa muy tekki ne hadis la waaye bu tumuranke la hadis bu tumuranke nag tekkiwul ne bu wérul la mooy loo xam ne kenn na ko solo jëlee ko ci kenn rek waaye wér na lu yonentu wax dafa ne fukk ak juróom fukki jikkook juróom ngi nii bis bu fi sama xeet wi heggee rek bala nattu musiba halkande faw mu wati sen kaw hegg nañ fa motax tax ñu torox su ngeen demee ba màng xalali mang yi ñu dem xare ñi xare ji won mom ko ñi am ñuñ ko momale ñu ñom ñi yëkëti ko ci ñi héesee sa bu ngeen heggé fofu rek aduna bi tukki na mooy bu dee bu ngeen demee ba soppé ko ak pàccoo mang nek lu ñuy pàccoo su ngeen heggé torox tan dal na sen kaw ñu ne ko ñaareel bi mu ne mooy bu demee ba kóolute nekk di mànguwaay mooy koo ngir comportement am wala kàddoom wala juddoom wala aw askanam mu jëm caa profité pour toroxal la foofa bu ngeen ca yeggee àdduna bi tukki na jamono ji yegg nañ ca ndax koo ci ji jamono kóolute ga daf koy mujj def ngànnaay di ko jéem a exploité nit ñi sañoo ko cay xiir booyee boo nga exploité sa bopp fu mu ne nii lu ne mën nga koo xam lu ne mën nga koo doon nangam ak nga ñàkk xam sa bopp nag di dugg ci lay ba far dugg ci tane koo xam ne mënutoo yaa génnati mu ne bu demee ba asaka mujj soppeeku mel ni impôt bu ñuy fayeeku ci nit ki am asaka war koo génnee carrément waaye pour ñu nga génnee ko rek problème la dafay mujj sax ci sa bopp bi sa alal ji sa bakkan bi ba mel ni ku la doon fayeeku wala ku lay fayeeku bor ni mu lay méttee ba nga génnee alali asaka ja noonu la mel ci moom hegg nañ ca am na ñoo xam ne génnee asaka mënuñu ko def nañ inventaire xam ne war nañoo génne 30 millions duñ ko man dañuy mujj di jukki par ndànk di lay ay enveloppe def ci ay 2000 bu weer wi dee ñi ñi mën a ñi ñi avance kat million beneen weer ba nangam ba asaka ja balaa mat saxaat ma del sihaat mu mel ni bor bu ñuy fayeeku ci ñoom la waaye ñu ne 30 millions ngi nii nga jékki génnee ko mi ngi nii seet ñu ko xeeyoo carrément nga jox leen ko yombatul yombatul asakaay avance rek ak asak asakaay jukki rek moo ci nekk taxawal ma jukki xaale ko rek taxawal ma jukki la kese moo fi nekk mu ne tamit bu jamono demee ba góor di topp jabaram dëngee yaayam loolu yegg nañ ci ñu ci bëri tey liñ man ci seen seet yi mënuñ ko seen yaay yi ñu ci bëri waxuma sax seen yaay seen sët yi seen seen séet yi waxuma seen soxna yi waaye seen goro yi rek lañ man ci seen goro yi leen may jabar mënuñ ko seen waajur yi lu la sa goro bi wax nga taxaw ca waaye lu la sa yaay wax nga jox ko ngànt ne ko dëkk bee neexut dana ci feeñ sax léeg-léeg danga dem ci koo xam ne nam defaree néeg jabaram ya bokkut ak ni mu defaree néeg yaayam néeg jabaram ya daq néeg yaayam fuuf boo duggee ci néeg jabaram yi doo ñemee toog waaye boo duggee ci néeg yaayam boo muy tuut booy booy laal lal ba surox kenn xamul foo jëm foog ne màgget yi bëgguñ dara déedéet defaral sa néeg jabar yi ni nga defaralee sa néeg yaay yi defaral sa néeg yaay ni nga defaree sa soxna waaye topp sa jabar dëngee sa yaay ku ko def da nga torox yonentou bi neena bis buñu ñu fofu foofa bi ni ngi torox tane hegg nañ fa pen dañ ko passé sax ndax li ma la wax léegi rek la mu waxatuma seen soxna yi waaye nit ñi liñ man ci seen gore yeleen may jabar sax mënuñ ko seen wajuri yi tax ki ño xamne may leen jabar ak gën jur leen maa la ko wax xam na xamne bo ne bénéfice wu ci ñoom may leen jabar waye bo leen juré rek am toroxtaane ki ñoom amna ki ño xamne may leen jabar ak gën fofu jur leen bo leen mayee jabar de am nga sens waye bo leen juré ñak nga sens loolu la yonent bi wax wa ataa rajulu zawjatahu wa aqa ummahu ñu ne ko ak ban mu ne nit koo xamee tey dafa baaxe xaritam xaritam lim man ci xaritam jaalal bi ko beccangal toroxal baayam xegg nañ ca ji jamono xale yi li leen seen xarit yi xamal seen baay yi xamaluñ leen ko kenn ku ci nekk bala ngaa bala la balaa sa baay xam ci yow dara nga dugg ci giraawaali goo mënta génn rek ñëw kulli say bët baay ja xamatul nu muy def waaye lépp lu ñuy nas ak di ko def ci ay pexe ñoom ak seen xarit ya ñoo koy nasandoor da nga ci gis koo xam ne amee na connexion wu 10 000 dana dem ba connexion ba jeex du ci woo baayam xaritam yi rek la ci woo yore crédit boo xamee ne ni crédit bi 10 000 la waaye dana dem ba crédit ba jeex du woo yaayam baayam xaritam yi doo dong lay woo bu xaritam yi xewlee mu dagg hiteem def ca lu nekk. waye bayam munu ci mom dara dara la munu ci bayam yonent wax kon nak bu ngeen sian ba tek sen xarit yi ci sen kaw bayyi àdduna bi tukina ji jamono temeri nit no gis jurom ñaar fukku ya ba jurom ñett fukku ya sen xarit yi lañ man ci ñom mënuñ ko ci sen bayyi lolu mom ñepp ko gis ba ca gëna a nak mu ne bu ngeen deme ba kaddu ya commencé yëkëti ko ca jakkaya passé nañ ko di ya ni ñaa jakkaya kay fu mu ne fay wax ay politique sax politique kay yang koy dégg ci jakkay yu dul jeex kenn mënu la wax li ci xew su ko defé ciowalo nek ci jakka ya quluba kaddu ya kaddu ya àdduna ya nek ci jakka ja motax tax wartafaatil fil masajidi mu li bu xasse am toroxtaane dal na sen kaw mënu len ci dara fokk ngeen torox xegg nañ ci fu mu ne nii yi ak juma yi ñoy garant place yi foofa tey mooy waxtaanukaay ya lepp luñu gis ci marché ba gis ko ci dekk bi lañ koy waxtane kenn ku ci nekk yaa ngi toog toog rek ci jàkk concentré wu waxoo kenn dal doyloo sa kurus sa kaamil ab alquran bëreetul de foo toll rek am na koo dana ma yaa ngi yaa ngi yottalante moom yéen a ngi yumtu yumti te la ca gën a bëri yaa ngi nekk ci darab jàmbur te nag fu ñu war a sippee bàkkaar war faa sëfee yiw yow boo fa demee di fa def lu bon da nga fay sippee yiw di fa safee bàkkaar am na ñoo xam ne jàkka yi seen musiba la maa la ko wax su ko defee tamit mu ne foofu bu ngeen fa yeggee musiba bi am na tey nag jàkka yi mooy waxtaanukaay yi mooy garant place yi mooy lépp du jeex ñu ci bëri bañ nañ ko ay garab sax lañuy la ñuy jëmbat mu rafet lool ñu def ko ay garant place toog fa rek bay Omar di fi nekk naa Omar yar la wutoon fu mu fekk gaa yoo rek caw leen dem leen ngeen liggéey liggéeyi asamaan si musul taw wurus su si musul taw xaalis ñu ne ko ñun dañuy def tawakkul mu ne xanaa tawaakul kay dem leen ngeen liggéeyi law annakum tatawakkaluna yontu xaq tawakkulihi la razaqakumullahu kama yarsaqu tayra taxdu ximaasan wa taruuxu bitaanan mu ne beneen bi ci tegu tamit bu ngeen demee ba mbooloo moo gisati ka fa gën a bon gën caa yées gën caa soxor moo leen jiite torox ngeen loolu yegg nañ foo dem ñaareel rek ka gën a yées a jiite nit ñi ka gën a bon gën a gën a yées rek moo jiite nit ñi su ko defee kon nag moo tax mu ne wa kaana saimul qawmi adallahum ki gën a torox ci nit ñi gën leen a bon moo leen di jiite bu ngeen fa yeggee torox ngeen kenn mënu ci dara mu ne ñaareel bi tamit mooy bu ngeen demee ba nga xam ne nit ki dañ koy teral ngir ragal làmmeñam gu ñaaw ak a bëri am na ñoo xamee ne tey seen làmmeñ wi te la ñu dund boo leen teralee buñ demee ci tele yi joobee la fa émission lañ leen jox waaye dañ la lañ la lañ la ci jox ay minutes tagg la fa yëkkati la fa diw ak diw di diw ko laaj su ko defee nga nekk fa jël émission bi la waa ji jox jël courant am jël télévision ham, wala jëb ab radio xam nga def ko yow mbattu yalwaan diko ko yalwaanee ku ne nga nuyu ñu ngay nuyu suñu xarit bale fële moo defal nangam mo def nangam ak nangam su ko defee ñi la teral ñi la ragal sa làmmeñ wu ñaaw wi ku la ko defalul man nga tok ci télé ba ba nga tok ci radio ba yaq deram mu né fofu bu ngeen fa heggee torox ngeen hegg nañ fa passé nañ ko wa ukrima rajulu makhafata sharrihi la yontu bi wax su ngeen démé ba bëgg teral nit ki te dara taxut ñu teral ko lu lulul ne dañoo ragal làmmiñam bu bon wi rek xam na ñoo xam ne ku bëgg a jàmm ci ab dëkk dee leen mosal ku bëgg a jàmm ci ab famille dee leen mosal ku bëgg jàmm ci am mbokk dee leen mosal foo leen gisee rek ne leen am yóbbu ca kër ga bokkal leen ko ndax nga am jàmm waaye am na ñoo xam ne ku leen du jox doo mucc ci seen làmmiñ wi fu ñu toll danañ wax loo xam ne mën naa tukkal àdduna loolu moom dañ koo bari leen lool. liñ ci xam kenn ñu mun koo waxti du jeex nek ci émission yi rek di sam mbaayaan di yalwaan rek ko jox émission mu def ko mbattam yalwaan ma ngi nuyu diw ma ngi nuyu diw ñi ngi sant diw mo def nangam ak nangam mom kay jambar la mo taxawal nangam ak nang ko la ko laaj ku la wax ne ci émission bi lolu ko taxaju kon yoy mbattam yalwaan rek ñi la koy teralee ngir sa yu neex ya ak di la ko ngir ragal nga wax safaan ba yonentou bi neena su ko defé bu ngeen démé yalla nattu len musiciens yu jigen yi bari ak ko akagn ko bari le musiciens yu goor yi bari mbalax ma fo tollu dégg ko ak riiti ya, ak balambaté ya ak piano ya torox ngeen de fo passé nañ ko euh, fu melni li fi li fi li fi ay musiciens kèn xamul nuñ tollu ñu ëpp kat yi ñoo ñu yaakaar naa sax ëpp ilimaan yi dem bo bo boo xamul sans sa ñoo ëpp jànkate alquran yi kon nak mu ne bu ngeen démé ba nga xamné wal maazif yi amna, kenn mënu tukki dara fokk ngeen torox ba ca mujj nag moom lañ bari le mu ne mooy bu ngeen demee ba ñu mujj ci xeet wi commencé di di xas di yàq deru ña njëkkoon ci xeet wa torox ngeen xegg nañ ca booy lire internet bi wax yu bon yi kilifa yi sax muccuñ ci kilifa yi diine yu baax yi nga xam ne génn nañ àdduna ba nekk seen biir bàmmeel nga xam ne leer gu fi nekk tey ci Sénégal ñoo ko fi installé ay xale yu ndaw tekkiwuñ dara jël ay wax yu bon di ko tekki seen der ya. waxuma la kilifay diine yi waaye sax sahaba yi muccuñ ci am na ki ñoo xam ne tey ñu ngi yëkkati ay kàddu yu bon muy ay son di ko teg ci Aboubacar Siddiq ñii di ko teg ci Seydina Omar ñii di ko teg ci naa Aliyu ñii di ko teg ci Seydina Ousmane ñii di ko teg ci naa Seydina Muawiya ak gaa yu baax yooyu waxuma la nag ku mel ni Cheikh na Ahmad a ak kilifa yu baax yooyu mu ne bu ngeen demee bañ a mujj ci xeet wa di xas ñu njëkkoon ci xeet wa su boobaa rek jërëtul ngeen jërëtul sonn faaw ngeen torox kenn mënu ci dara. fukk ak juróom yi yonent bi waxoon ci lañ yegg moo tax ñu torox koo gis ki ñun jeexalu dara mais amul dara koo gis ci ñoom yëg na mi ngi sooxaalee feebar koo gis ci ñoom gis ci moom ak wéradi koo gis ci moom gis ci moom loo xam ne mënoo koo nettali kon nag la mu waxoon dara mënu koo dindi fukki jikko la yonent bi waxoon ak juróom bu ngeen ca xeggee torox ngeen fokk mbugalam yàlla dal seen kaw loola nag xegg nañ ca moo tax mu ne su boobaa da ngeen di toog rek gis benn ngelaw lu xonq bu leen dikkal ñi mujj maanaam suuf di yëngatu nit ñay dee ci biir loolu ñu ngi koy def ci àdduna yu bari suuf nga yëngatu nit ñay dee mu ne ñi masqu leen nga gis kii carrément boo gisee nit sax da ngay wax est-ce que kii ma gis nit la est-ce que kii du mala ci bind wu jikko moom passé nañ ko nit ñi fu mel ni téeméer nit ñoo gis juróom-ñeent fukk ya boo jëflante ñoom fekk ci ñoom jikkoy mala ñenn ñi nit lañ carrément ci nopp ki tànk ndax sëñ laa dafa ne nit du dara lu dul ku bopp ba nekk ca kaw rek tànk yi nekk ci suuf lii rek mooy nit bëri na ku mel noona waaye fekk na jikkooy euh, jikkooy jikkooy malaa nga ca moom am na ki ñoo xam ne jikkooy janax lañu ñu yàq rek ak golo fu ñu xendu yàq mbokk fu ñu xendu yàq pénc fu ñu xendu yàq réew kenn mënu ci dara am ci ñoo xam ne tabaarakallaahu jikkooy bëy fu ñu xendu tànqal nit ñi kenn du mën a noppalu fuñ ku dëkk ak ñoom xam nga coono am ci ñoo xam ne jikkooy mbaam boo leen bëggee ñàkk teral leen teraa nga jigut leen boo leen di teral ñàkk leen kenn mënu ci dara am ci ñoo xam ne jikkoy kundu boo leen xóoloo ñu xor la boo leen xóoloo ba jox leen kàddu wala nga xóol leen ba jox leen xalal mbaa nga xóol leen ba jox leen postu ñu xor la kenn mënu ci dara ñoo kundu yi ñoo am ci ñoo xam ne jikkooy nag lañ yore buñ la jekkoo rek jam la munoo ci dara am ci ñoo xam ne jikkooy xar lañ yore jëmuñ fenn foo leen jëmale rek fo len wo ñu ne may mu tuti rek ma sol sama Dali, li doo ma doo ma jiitu maa mang lay lay fekk ci bop koñ bi jëmuñu fenn kay di wër ba ngon jor rek ñu su ko defé kon fukki jikko gi juroom yi la yonentu bi waxon bu gën ci hegge faw ngeen torox fukki jurok ju fukki jurok jikko juroom yi waxuma xegg mais passé nañ ko te yeen ñi may deglu yeen ko gëna xam kenn ku ci nekk man nako ci bopam kenn ku ne man nako ci mbokam kenn ku ne man nako ci dekk ndoram kenn ku ne man nako ci dekkam kenn ku ne man nako ci rewam balil insaanu ala nafsihi basira kon nag la yonent bi waxoon yegg nañ ca moo tax torox nañ rek kenn xamatul lañ lan nekk fi bëri te mënuñ dara bëri le mënuñoo taxawal dara dara du lu lu jëm kër mënuñ koo def kon nag tabaarakallaahu njàngaleem yonent bi dafa leer kon nag yii ay sobe la ay mbon mbon la yu ñu war a dindi ci jàkka yi limal naa la ci tabaarakallaahu juróom boo ma toppee suba ma jëlal la juróom-benn ya jëm ak yow ba yooyu yëpp jeex waaye suba ci waxtu wi lay doon in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu li unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu